inna lillahi wa inna ilaihi rajiun xam sun borom mom ñun ñep mo nu sak indi ñu fi di jël kenn par kenn ki fi joge tay nak xéere ji mom lu yomb la ndax defe man bokku na ci ñi nga xamne war na ko xam ndax moma jangal jamono yi ñu fi nekké di fi jang maag ci jiidi ni ak yeen ji bobu boobu kër gi soxnaam sax nekku fi ñu ñu fi nekkoon ak mom waaye liñ mën a seede ci moom te muy dëgg mooy natt yi ñuy natt nit ku baax àndaar joo ko natt rek mu fees ko dell sàmmoonte di jullit bu wér boo xamante ne lam doon doxe ci rafet njot ci diggante ma ku ne lum tegut bëtam lum nuuru nuur lu ñaaw da koy rafetal kon loolu mooy xàq moo mooy mooy dëgg dëgg sariya jaamu yàlla gi nga xamante moom la taxoon nu ba ba mu juddee rek noonu la ñëwaale waaw waaye man nak lima ma gën a marqué ci moom moi dëgg mooy man sama nattuwaay mooy ak taalibe te lima kam xam ci moom ci taalibe ñeme na addiya lool ñeme liggéey yool yóbbu tak Sëriñ Tuubaa fi ko suñ borom teg waaw kon man nga ne bu fekkente ne ni man ngaa seeri ci moom mooy ab jullit bu wér a ngi bu matal xàqi julit ci digganteem ak boromam lenn lu ñuy tere ku mas a teg ne gis naa ko mu def ko ni teg ce bët amut lépp luñ digle mën ca doon def ba def ca loo xamante da ngay xam ne lii sax ak xir la waaye du lu man waaw bu dee digganteem ak sëriñ bi fépp fu mu dégg ku baax ci yoon wi ku am yaakaaru addiyaa ma ngi fay dem ma ngi koy toppatoo yoon xalkoom ci sëriñ Saliou njëkk woote man ak moom ñoo bokkoon wenn waar bi ma ñëwee dama ne ko tee oto bi dem di lijjanti bàyyi may jiite mbooloo mi ñuy gor mu ne ma déedéet sëriñ xam nga ne loolu man mënuma ko yow yaa ko man dama di bi lu ñuy lekk ak lu ñuy naan te man nga bàyyi ma jiite mbooloo mi waaye su xëyee soo ba julli suba ba noppi xeppam lu yor di gor balaa toog julli tisbaar daa jot bu sëlmalee tisbaar jógaat balaa toog day julli takkusaan bu julli takkusaan jógaat balaa toog timis daa jot fu ñu timis fekk fa lañ ko fa fa fa la ñuy mujj na taalib yi nga xam ñaan ànd dañ nan ku bëgg a noppalu bu ci ñu Abdourahman waaw ndax bu jullé suba ma nga fa ba tisbar bu jullé tisbar ma nga fa tok takkusaan bu jullé tok takkusaan ma nga fa ba timis ñam fa fukki fan ak ñatt kon lool ak talibé la te yor te yor ab liggéey ay jumtukaayam di di gor man bu doon mana damay taxaw di soñu nit ñi waye mom da yor xépam and ak nit ñi di di gor waaw hmm, kon dal xana di ñaan sun borom tabaaraka taala rek la nga xamanteni mom la wuti aduna ba taxoon ak coono yi mu fi nekkoon suñu borom fay ko ci lu kaw njort defe naa bu tasee borom Daaru Muxti bu tasee Seexul Xadiim mi nga xam ne moom rek la gëmoon te ñun lépp mooy suñu yaakaar te ëllëg duus waaw kon nag ñu ñaan suñu borom taas ci barkeem te taas yi ñëpp de xam ne nag roy téef la waaw jamono yàqu na yàqu gi mu yàqu nag bu mu tax kenn baissé les bras waaw nañ xam ne kenn ku nekk am nga foo war a féete l'islam mu am lu mu la war a jaral am nga war a foo foo war a féete yoon wi mu am lum la jaral moom nag nag loolee xamoon na ko waaw ba tax na ci la doon xëy di ci gon li mu xamal li xam xamle ci ay doomu aadama te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki gën ci yéen mooy ki xam alxuraan di ko xam ne waaw kon man nga ne moom ci ñi gën a baax la bokk boole koog nag li ñuy tënke muy taalibe gi nga xam ne man mooy sama nattuwaay fam seemoon néewaa na ko ko romb kon nag ñu ngi koy ñaanal suñu borom tabaraka wa taala yàlla mi nga xamne moy nangou nangu te jëf yi lumu mu lu mu rafet ci nangoom rek lay amé solo yàlla na ko suñu borom nangul te nangul ci baaxi Seex Xaadim Abdourahmane mom ay jikkoom buñ ko doon lim man nañ fee am ñett fan te doig afisul quran la alim kullu fannin la abid la murid sadiq la itam ndax lépp lu seigne touba ma a sant Ceerno bi fi bayam nekkee mo ci man bi seigne cheikh khadi Xaadim yit mo ci man te yàqulu ko dara ci sharia waaw am taalibi la bu wér li xam-xam bi bari bari taalibi gi ko li taalibi gi bari bari fonk gi mbokk ko li fonk gi mbokk bari bari ah, fonk doomu aadama ko ci moom waaw futul ci jàkk naafilaam lamit dara du ko dog te lu mu am jox ko sëriñ bi mu bi bàyyam nekkee lu mu am jox ko bi sëñ Cheikh Khady nekkee lu mu am jox ko ñun ñii itam nga xam ne noo ko féete ak mag lu ne la ñuy yónnee lu xew lu ne lu ne dañ ko ci yónnee kon kooku mooy Abdourahmane waaw bis bi fàggandiku woon na ko lool waaw fàggandiku na ko ah, ci diggam ak lislaam fàggandiku na ci diggam ak taalibeem kon yaar yëpp yàlla na ko yàlla fay waaw amul moroom morom moom amu ko lu mu am rek ci sariya la ko def jàkka koy def wala daare jàngukaay li mu mokkalal ci alxuraan buñ ko seetoon dana ëpp junni nit mm-hmm. li mu jàngal ci xam ba ñu dañu bu réer buñ ko seetoon dana ëpp junni nit te ci bokk yi la ko tàmbalee kenn ku fi nekk jàngal na sa doom am na fi sax ñoo xam ne dafa jàngal seen bay jàngal seen i waaw te it bi mu amee fukki at ak juróom-ñett bi mu amee fukki at ak juróom-ñett ci la tàmbali lii te mu siyee dëpp ba bis bi mu fi jógee waaw jékkiwul bay doon mag soo koo def mm-hmm. fa mu tegoon tànkam rek la ko teg ci fukki atam ak juróom ba bii mu amee juróom-ñaar fukki at yu manqué benn waaw noo ngi ñaan nag yàlla bu yaakaaram tas yàlla na ko yàlla boole ci jaam ñi mu goreel te waxtu bu ne bàyyi na fi bind boo xam ne ku ci nekk ku ne ah da sa borom dana la gërëm sëriñ bi dana la gërëm ndax band yi mu def yëpp du bandu boppam bu muy wax ci boppam dara ku jàng nangam da am nangam ku jàng nangam yàlla dana la yërëm ku liggéeyal kuy liggéeyal sëñ bi nangam nga war a def kuy jox sëñ bi nangam nga war a def sëriñ bi nangam lañ ko war a jàppee loolu mooy mooy mooy mbiram te mosu cee jox benn yoon lii daal son bi laa ci amoon ci lu ma mën a wax waaye buñ ko doon ba suba it du jeex